3S Pro jërëngeen jëf mbokk internet seen làmb yi mbégte la waat ak contentement ñu jàkkaarloo ak yéen di bu baax a baax ah, si bisu maam li maa wuñ bi fu waaye mën ne si àddina en ce moment bàyyi xel rek noonu lay ñaanal suñu borom defal la jàmm ah di ko di ko sàkku si yéen ngeen ñaanal ko aussi yaakaar naa ne ñoo ngi si appelu Yoff bi ren di cent quarante quatrième anniversaire de Seydina Limamou ñu koy ñaanal bu baax a baax suñu borom yal na yàlla fayal ñu ko yàlla fayal ñu ay njabootam bu baax a baax rawatina kilifa diine yëpp yàlla suñu borom wàcce waa jàmm si réew mi lépp lu ñuy ñaan tey si appel bi mu bëree mu tuuti yàlla na yàlla suñu borom ful bu ko fulee tas si réew mi ku nekk jëriñu si barke Seydina Mohamed si biir loolu nag daaw yaakaar naa ñëwoon nañu fii nga xamante ni mooy Yoff man ak Kalidou yaakaar naa ak sëñ Fallou Seck borom tafsir Touba Xayra fii kër Thiat Yoff ren suñu borom may ñu fekkee waat ko du suñu jàmbaar du suñu sañ-sañ am ñu ko fekke woon daaw ren fekkee wuñ ko kon ñu ñaan si yàlla suñu borom bi yàlla nañ ko teewaat ay déew yu bëri bëri ñu ñëw fas yéene jël si Thiat Yoff fas yéene seqam waxtaan si appel bi nan la koy dundee waaye prochain adversaire am bu laata ñu génn si gala bi ñen ñooy ay prochain adversaire parce si gala ñu bëri ñu dugg si gala mbokk yooyu bu ñu koy dajale waxtaan si sama toma ah sëriñ mu baax mi sëriñ bu Gaston production ah sama waa ji maa lay ziar. <laughs> maa ngi lay ziar bu baax di la jaajëfal di la ndokkeel ci bis bi di nuyu caatu yoof ak macha allah lambalog ak ndaanaan yi ma fekk fii di bëri nuyoo sama grand alaaji Pafal mi ma àndal di ndokkeel képp koo xam ne jullit nga waaye taalibi mam seeni nga ñun nag bu nu duggee yoof ci appel bi bàyyi suñu yitee tab bi kër caatu yoof mhm. wurus ñibbi na ngalam dëgg a looloo moo war a mën am. waaw ndax ñi bokk teen bi. ñooy la ñoo ñooy raxasooy goj mm-hmm. ca caatu bu dee yëngu ci lamb di champion. Mm-hmm. ngay reporter bu mag. Mm-hmm. di journaliste ma yor micro central lamb ji. lamb lom mii di chroniqueur bu mag. macha allah champion ñu fekk ak ndaanaan yi. bu ñu dajee kër caatu yoof war naa a nekk. ñaan yàlla cent quarante édition bii. yàlla nañ ko féete di ko féete di ko féete ba keroog rek. ñuy màggat ñu ni weer ak weer mhm. yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def waaye di ñaan yàlla lu ñu fi wàccee mu néew mu bari ci ay kaamil mhm. yàlla na ko yàlla nangu Sénégal moo baaxoo nii mhm. ku xam na ni mag ñi fi nekk ku xam na ni liggéey nañ wax naa fi bërki démb ci Cambérène ne la Serigne Touba daf ni sama dund dama koo xaaj at mi sama dund ci at mi dama ko xaaj juróom benn weer dama koy tagg yonent bi waaye juróom benn weer yi ci des dama koy julli ci yonent bi ñu ni ko bindal mu ni salaatu sitta bi mat an sitta mhm. taati ba tatama ati saa yi Seex Malik ni mhm. julli yi may julli mhm. woor yi may woor baax na naam am naa ci yaakaar waaye jàpp mu ni moom mën a dugal àjjana ñu ni ko loolu mën a dugal àjjana mu ni mahabba bi ma am ci Seydina Mohamed cofeel géeg bëgg gi ma ko bëgg moom laa jàpp ni moom mën a dugal àjjana ñu ni ko bindal mu ni sa naf un ala hubbin bila amalin wa taabi'al sunnatal muxtaari tahtanami waaye maam Seyni dafa wax lu kenn mës sa wax. muy lan ndax daf nii man mii yéen nit ak jinne mhm. man la yàlla yónni ci yéen ma weexoon démb tey ma ñuul. moom maam Seyni moom maam Seyni ñu ni tekk ni ko bindal. mu ni yaa massaral jinni wal insi inni rasulilaahi aleykum kon nag ajibo daaya laay ñëw leen ngeen wuy si woote bi dama ni bu dee ña ca wala ndoo ma ñoo daanu ca teen ba waxantuma laa ña ca pind ba bu dee ay nit dañuy jóge Europe mhm. ñii di jóge Asie mhm. ñii di jóge Afrique mhm. di jëli avion ñii di jëli gaal di daanu si fii ci Yoff waxantuma ñu ñu dëkk ci territoire bi dañuy ñëw wuy si woote bi ba mu baax di ndokkee caatu Yoff di ko ñaanal yàlla yalla defal ko jàmm may ko ndam may ko sutura pool bi mu bokk que le maire gagne loolu ko ci wees sëriñ waaye di la jaajëfal liggéey bi rafet na macha allah di nuyu sa cameraman di nuyu làmbaloog mhm. asalaamaaleykum wa rahmatulah kontaan naa a kontaan noonu ndeysaan la sëriñ a ah. ñu koy ñaan bu baax a baax micro central ba sa làmba ji nag moo ko yor def liggéey bu am solo mu mucc ajib ñu koy yaakaar naa dégg nga kat moom la sëriñ tijjee yaakaar naa dugal na la maa ngi lay nuyu sëriñ maa lay fay. sant yàlla bu baax julli seen sant nañu ñaari waajur bu baax xam nga maa ngi nuyu ñu fi teew képp ku teew si appel bi rek xam nga ñu lay nuyu bu baax di la ñaanal nga dal jàmm xam nga ñu ñaanal booy ñëw tamit xam nga nga ñibbiwaat si jàmm benn problème bañ laa bu baax di santal leen bu fi ñaan yàlla ko yàlla nangu mm-hmm. su dee lu baax la yàlla ko yàlla nangu wasaare si dëkk bi dëkk bi am jàmm xam taas ñu si barke ñi nga xamante ne ñoo waral bis bi tey xam nga di ñaan muy maam Doudou mm. ñu koy ñaanal mu gudd foon na wér gu yaram yëpp di nuyu laayeen yëpp xam mm. daal mm. eh. dafay ren loo jër jàng waaw naa sant yàlla yokkute eh, daaw xam nga def na mais ren ji moo gën a neex ah, parce que dafa fekk ñu ñu bégal yoof ñu ne si ay ñu daa combat yàlla sutural ñu si ñu daan ci kon suñu appel day neex mhm. te ren appel ñu mhm. yow ñu yow ñu gën a yow ay nag mhm. loolu bëgg yow ay nag ut gan yu gan yu bëree bëri bëri ci kàttanu yàlla parce que affaire dafa war a màgg yooyu mm. am na solo aco macha allah ñu dugg si lamb ji direct yaakaar naa nga dugg si benn kala laataa bi nga génnee sa combat yàgg ki nga xamante mooy ñàkk jëriñu nga entamé benn kala wala benn kalaaf ñu bëri say supporter d'accord ñu woon ñu bëri say mbokk tàkkoor ñu woon est-ce que mën nga parce que déggoon naa say écho waaw si loolu amoon na. mais gars yi xam na ne làmb sama métier la. comprendre na ma si loolu ñu ànd si xam man. échange tool ñëpp d'accord nañ parce que làmb mooy sama métier su ma bëriwul du am xaalis du ma a jox samay famille samay waajur. ma laa yaakaar. Mhm. te gars yi comprendre na ma si côté boobu. Mhm. léegi ñëpp ñëwaat na pour jàppaat ñu ngi waajaat prochaine journée bi nag échange foofu lañ toll quoi. waaw. Mhm. parce que man déggoon naa yaakaar naa ki nga xamante mooy Ndiaye Tine ma Diop Kajoor bëggoon na dox seen combat ay temps combat bi daal di yàqu. bu ñu wootee kalaaf bi ni njaaytin si la bokk ak ki nga xam mooy gàmmu gi nga xamante ni moom yàgg na bëree fi bëree yow moment boobu lan lan nga sentir non dëgg yàlla sentir ma dara njaaytin lu ma six ans ngi ñu def suñu combat am moom mhm. man maa bëggoon combat bi mais yàlla def na ñu bëri ma daan ko moment boobu lu ma ko bëggoo ko woon non parce que nekkuloon sama yoon quoi dëgg yàlla nekkuloon sama yoon quoi mais mais mais pour yaakaar naa moom nga njëkk am coow li bëri woon na caat njaaytin ak caat daañu xeex daañu bëri nga ñëw combat bi yombee noonu si yow waaw lépp sant yàlla la su yombee yàlla la mais préparé woon na pour xeex préparé woon na pour bëre yàlla da ko yombal jox ma victoire bu sedd sedd guy yaakaar naa neuf points nga si war am pour mën a jël li nga xam ne mooy pay bi pour nga terminer en beauté lan la laaj non instant yoruma point zéro point laa yor instant toll espérance zéro point moo si nekk sa philosophie loolu ngay waaw zéro laa yor. ok ma am trois points amaat yeneen trois points. Mhm. soo gaa nekkat soit xëccoo deux wala troisième. Mhm. waaw moo la boole classe bi ñàkk ay adversaire nga yàkkam di bërewaat moo la boole classe bi wala lan la. non problème combat moom moo si dugal suma manager wax si Fallou Ndiaye wax si. Mhm. Matar Ndiaye xam nga mooy suma manager. xam nga ma wax ak gars yi wax ay Aziz Ndiaye xam nga ñu ne ma atya ma ma dugg si. Eh. la moo tax ngay daw am adversaire boo bëree pare pour nga bëriwaat si tout un problème adversaire yi la staff bi la wala lan la. non du si staff du si du si xam nga xam luy problème. Mm-hmm. xam nga tey bu ma joxee ñoo xamante ni yàlla def na maa leen man mm-hmm. kon gars yi duñ bëgg a bëree man. mais su ma joxee ñoo xam ne su may la combat bi dina métti après foofu su ma fa jugee gars yi dina xam ne man ñi may dóor nii dama leen morom moo tax ma leen dóor. Mm-hmm. mais su ma yi joxee samay morom du dóoree du kon amagoo say morom yi. non amaguma samay man sama sama morom si kaw la ne. pourtant bëri nga ak Franc rek sa Franc sa morom la woon. si Franc waaw bëri naa moom. waaw. sëriñ Franc may bëree moom. neuf combats la mu am trois combats. nga bëri ak moom. waaw ah, ma am huit victoire teg moom ma am trois combats sama neuvième combat ma jël ko. li daal dafa mel ni loolu bu heure boo koy dafa mel ni la gën a métti jaar. non waaw foog mu métti la. parce que ñu ay mbër lan champion doon quoi mhm. kon ku ñu daan moom bàyyi ñaan naan yàlla bëri war ëllëg quoi mhm. acca nga jógee si combat yaakaar na da sa benn sortie xaw si vaccin sax ki nga xamante mooy ñaa ndaw mu doon bëri sa bisu combat boobu moo doon bëri grand combat bi moog Zarko ñu gis loolu jur parce que def na benn sortie moom aussi tamit di ñaawlu par rapport ak sa réaction waaw si xam nga àdduna dafa doy waar man tey bi ñu bëree Tyson 2 daan ma mhm. ñëpp dañ ma boole li ma neexal li ma naqari dem laqatuwaat rayaat sama bopp jël sama xaalis yëpp financé la ma aw ma dara li ma amoon yëpp laa dajale dem Maroc parce que di bàyyi xel li gars yi waxoon kii mënul bëri xamul dara ma dem entraîné ji rey suma bopp nag rey suma bopp entraîné ji ndax ndax li ma gars yi waxoon man li ma ko wax ni billahi wallahi taala su doon man xam na laa koy liggéeyee rey suma bopp dem entraînement yi contact jàng bëri non ma na ngay tuutal tuutal ñenn ñi sax jàpp ni da nga da nga da nga xaw a iñaane pour moo nga baal mi si kàddu gi moo nga defee noonu non iñaanu ko yoru ñuy wërsëg bokk ñuy wërsëg mm-hmm. wërsëgam su a lekk damay dee xam li mu war a lekk lay lekk li mu a lekk lay lekk mm-hmm. xam nga ya man adduna dafa doy waar parce que yàlla naa def man du ma mm-hmm. na lool kon man mënu maa yor li ma ko wax ni juste pour xam nga parce que loolu jàmb jàmbaar xelu si xelu jàmbaar lay ah, nekk pour yokk ko courage daal waaw si xelu jàmbaar lay nekk man yàlla xam na ne Franc dama daan billaahi wallaahi taala ñu ni kii daram tàndu rek mm. et am tegal naa une victoire ñu ni kii day tàndu mm-hmm. ma dem réaction boobu ñëw teglawaat si sept victoire mm-hmm. Tyson de ma ñëwaat demaat réaction boobu teglawaat ñaari victoire kon xam nga ne loolu li gars yi di wax moom moo moo tax ma nekk champion mm-hmm. mais su ma bëree par gars yi naan kii mën na bëre xam nga mais sans nank daanee damay jàpp ne man niveau boobu ma nekk laa war a continuer du ma réaction boobu du ma du ma jàngi dara du ma yokk dara kon mu mel ni kon bëri bu mu bëri beeg Zarko nga jàpp ni moom cuune la quoi. non dëgg yàlla moom loolu moom du ma si wax quoi bu dëgg yàlla. ah mais si loolu nga sukkandiku ba wax loolu. non xam nga Sénégal tey neexul waxee. waaw xam nga da wax nit ko pour yéeg ak yi jàpp ne da nga réew wala da nga commencé yëg succès hmm. wala da nga commencé bopp yooyu noonu. du question loolu sax xam nga tey wax wax day yee nit. Hmm. day leeral sa yoon bu dee jàmbaar nga da lay teg si yoon code bu baax. Hmm. ñu ne 100 milliards du bëri ak yow. waaw loolu pare man boo ma jeexee mille francs la may bëree moom ba téeméer. ah moom kat bëggul bëre yow nee na boo ko yokkee sa boo desoon si làmb ji moom mu bàyyi làmb moo ko gën a bëri. waaw léegi moo tax man la man boo ma joxee téeméer sax. dama jox sama yaay 200 yi sama bàbb 200 yi 100 francs ma moom. xam nga xam nga tey loolu yàlla moom bëgguma wax si loolu quoi. ah mais moom moo ne bëggul bëre ak yow. waaw yow bu la fayoon téeméer nga bëre ak moom. waaw bëggul bëre moom kon ça veut dire que yow yaa ngi koy moom na jël yoonam na jël suma yoon loolu rek la lamba ñi fi ne bëri na ñi ne bëri na de kenn du sa wër sa wër sa wër sa gu morom est-ce que nekkul coow lu mu bëree ñu naan caat warul nangu ñu bëree ñaar gu ndox spécial wala zarko spécial est-ce que nekkul loolu moo la bouleversé en ce moment nga réagir noonu. nan comme ni nga réagir sa interview ba nga def bi non réagir mu dara. Eh, dëgg yàlla ma ko bët quoi dëgg yàlla. Hmm. bokk si ñi xam ne dama leen a bàyyi si làmb. Hmm. non non. làmb ñu muy doxee ni temps yi noo gisee. waaw naay sant yàlla rek ñaan yàlla mu yokk xam mu ngi jeex si jàmm. su làmb ji paase réussir na xam nga dégg benn booy ni policier yi dóoroon ma solol na ma. xam nga jeex na si jàmm te loolu rek avantage la. ñun xam nga xale yi moo tax ñu rey suñu bopp. kon tey bu ñu ñëwee ñëwaat si jàmm rek dañuy santat yàlla. Zarko Bébé Diène jaadu na. làmb la. lépp làmb la. Zarko Coins. lépp làmb la. kon ñaari promoteurs yi si di am problème si par rapport ak loolu noonu ba mu nar ay conflit seen diggante est-ce que en tant que mbër ñu rek xool nañu trouver accord rek moo moo ëpp importance quoi. Mm-hmm. Eh. sa mbokki mbër Coly Faye ñu jënk li nga xamante ni mooy nervi deux jours yi génn ñu jàll ko benn waaye bu yor pistolet ñu jàppal ñu Coly Faye ba loolu commencé woon dur benn genre polémique seen biir ñoom tey en tant que mbër ñu tekk sama moroom mbër. bi nga déggee loolu lan nga si wax. waaw si xam nga loolu yëpp delloo delloo yàlla la. parce que kilifa nit ñi ñu ngi koy bàyyi xel moo tax ñu koy waxal. parce que nit ki bu bu la rek kenn bàyyiwul la xel. mais malheureusement moom moo waaj yi nuroon na bopp yi bokkuñ parce que kilifa yi daa watu. kële watuwul. waaw ah, nuroon na mais bopp mu xam la jëm. boo mi ngi yor dégradateur mhm. waaw kooku kay boobu maa. <laughs> xaw ma gars yi tamit dañoo xawoon mer rek moo tax ñu jaawale moom. non mais gars yi lépp lu ñuy def na war nañ ko xool quoi. parce que ku lu fay dafa yor ay famille. Mhm. yor njaboot dëkk tamit si dëkk boo xamante ni. Mhm. dëkk bu am importance waaw. waaw du ñuy bañ. waaw dañuy bañ ba xëy dee. lan moo la gën a neex si moom. Coly Faye na la de. non parce que parce que xam nga tam lam lenn la moom neex si moom. waaw dafa oyof euh, dafa bëgg bés si jàmbur. waaw bëgg reetaan. loolu moo ma neex si la soofee noonu. dafa bëgg bés si jàmbur quoi. Eh. képp damay xool bépp mbër bu xew la muy Lamsaar. Mm-hmm. Thiaré dama koy mm-hmm. gis si ginnaawam quoi. Eh. ak a baax. ca kontaan nañu lan ngay tàggatoo. waaw di sant yàlla ngay tàggatoo nag sama jabar moo togg ceeb li Kumba ak turandoo Binta ñoo nekkoon si waañ bi macha allah kontaan nañ si bernde yi di leen bu baax a baax yàlla nañ ko defar ay déwén loolu ñu gën a yokk si baag seen naam Muhammad bébé Binta yàlla na màgg ah buñ koy takk. ma ñëw fi nag ak maamam Yacine Koli ak maamam sama yaay Yacine Koli kenn du moom. <laughs> maman Yacine Koli yal na la yàlla suñu borom defal jàmm goro caatu yoof la yal na la yàlla suñu defal jàmm yal na la yàlla defal jàmm maman Yacine Koli man sa doom maa la koy ñaanal ngay sama turandoo yaay ma bëgg la lool yal na la yàlla defal jàmm maman aja caat tàggu tool waaw santal yàlla rek mhm. santal appel ñu ñëw yëpp mhm. xam nga ñu ngi yàlla bu baax mhm. di xam nga adduna boo toggee amoo ku la ko lekk loo ku la ko lekkal loolu tamit da ngay këpp yi yàq la waaw mais sant yàlla xoolal sa bopp sax waaw togg nañ xam nga affaire waaw togg nañ ñëpp ñëw lekk ba suur kenn ñëwul ni affaire yi ñoo manqué waaw xam nga suñu bëriwul mais mm-hmm. ay nit jàpp nañ si mm-hmm. xam nga Makan jàpp na si appel bi mm-hmm. Matar Ndiaye jàpp na si Fallou Ndiaye jàpp na si xam nga sëñ Fallou Mara jàpp na si sëñ Fallou Mara ah, jàmm gën ja non non géejawaay ah, xam nga loolu indi na problème am na ñu may wax naa man sëñ Fallou man xam sëñ Fallou Mara fële jàmm gën ma ko. waaw parce que mosu na ma laaj sa numéro ni ma dafa dafa dégg benn interview nga koy tudd. wax na ma te gars yi du Mara Guédiawaye laay tudd. mbokk mm-hmm. Fallou Ndiaye laay tudd. Mm-hmm. moom laay mm-hmm. allah ana Diouf Sarr ñëw na wala ñëwul. Diouf Sarr non su ma woon mu ñëw mais oo ma ko. Mm. baax a baax. Aziz Ndiaye borom Zator. Aziz Ndiaye borom Zator. Aziz Ndiaye men. Aziz Ndiaye waaw sant naa ko la moo def moo moo bëggal boppam. ndeysaan man tamit mu bëgg ko ma koy wër yàlla def ñu daje nag. Eh. gëmee woo ko sax ko du ngeen. non gëmee ma ko wax dëgg yàlla. Aziz Ndiaye rek. yàlla xam na loolu borom baax na nag. waaw ku baax. am na yéen yàlla yàlla àgg leen yéeneen ci Sénégal. Mm-hmm. ak jeunesse bi. Mm-hmm. Eh. Mhm. noonu la demee macha allah jërëjëf mi ngi noonu mbokk yi mi ngi noonu tey caatu Yoff la leen di doon fii si euh, Yoff yaakaar naa tey waroon nekk cent quarante-quatrième anniversaire de Seydina Limamou ñu ñaan rek encore une fois lépp lu ñu fi ñaan suñu borom nangu ko li neex si waxtaan bi suñu borom la lépp lu si naqe lu neex suñu mat di la ndax dañu bëggoon lépp a neex mbokk yi di leen joxaat dig dajee beneen yoon si beneen numéro ak beneen invité jaa ngeen